bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey bal xaq ñépp yal nañu yàlla bari jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy tënk ci waxi suñu boroom ji mu wax ne dee leen matal kóllëre ndax kóllëre bu ëllëgee yàlla daf koy laaj nit ki ananum ca defoon laaj jëmmi kóllëre gi ci boppam ananum ju defoon ak yow bu fekkee daa digle kóllëre nag te mooy sàmm ko sa kem kàttan kon dafa tere fecci kóllëre feccale fecci kóllëre moomu nag moom la ñuy tànn tey mooy fii sunu borom di waxe ne wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula fecci kóllëre nag ñaari xaaj la xaaj bu jëkk bi mooy bi nit ki di séq kóllëre gi nit ki di séq ak moroomi jaamam beneen xaaj bi mooy xaaj bi nga xam ne moo ci ëpp solo mooy bi dox digganteem ak boroomam doonte kóllëre ki nga koy séqal da ngeen di nawlonte muy nit ngay nit waaye teewul suñu boroom jëfandikoo ñiy fecc ci kóllëre seen digganteem ak moom foofu lañ cay yem duñ laaj ni muy demee diggante nit ki ak jaa ak boroomam waaye man fi tënk tuuti fii mu waxee ne lu rëy ci moom la moom sunu boroom subhaanahu wa taala nit ki fecci kóllëre digganteem ak moom mooy fi muy wax ne sànj bu mag bu rëy yàlla waajalal na ko ñi nga xam ne dañoo fecci kóllëre ak moom fecci kóllëre nag dana doon ci ay wax dana doon ci ay jëf waaye nee na rëy na lool sànj bu yàlla waajalal nit ki muy wax loo xam ne naru ca dara kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun mu bokk ci melokaan yi ñuy ràññee naafeq dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon bu naafeq doonee tool bu yaatoo yaatu fecc kóllëre pàcc bu ca am solo la boo xam ne bu ci jógee la cay des du bari moo tax nit ki saa bu doggoo ne danaa def nangam tënk na boppam wala danaa bàyyi nangam su boobaa tënk na boppam ndax nit ñaa ngi koy xool ba xam la mu wax ne dana ko def dana ko def waaw wala déet wala lim bàyyi li mu wax ne dana ko bàyyi dana ko bàyyi waaw wala déet ndax lu ci nekk du dem noonu ci neen rek ndax suñu borom mi ngi wax ci alquran ne amut lenn lu nit di def fii muy neen ëllëg wa kullu shay'in faaluhu fi zubur wa kullu saxirin wa kabirin mustaqar moo tax suñu borom ne su nit demee ba yàgg mu fecc kóllëre xawma ku muy bett waaye moom du ko bett ndax xool na nit ñi xool leen xoolaat leen yàlla nag lum ne bu ne li ëpp ci nangam lim booba du nit du lim bu nit di mën a takk nee daal xool na xool nit ñi waaye li ëpp ci ñoom ay fecckati kóllëre lañ yàlla ci yàlla musal ci melokaan naafiq yi la bokk te ku génnut daairab naafiq ñu ngi jëm ci daairab faasiq wa ma wajadna li aktarihim min ahdin wa in wajadna aktarahum la faasiqin kóllëre gi dox diggante nit ak sunu boroom nag neex naa xam ndax suñu boroom nawlantewut ak kenn waaye mooy daal bu nit ki xasee ba wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fas na bu mu kóllëre ko dox digganteem ak boroomam ndax dàq na nguuru keneen wala mbuuru keneen wala yàlla jeneen judul moom nam koy firndeele nag ba nit ñi mën koo xam mooy teg tànkam ci ponk lislaam yi kon bu xasee ba wax loolu tënk na boppam ci ne moom kon julli daf du ko wàcce wenn waxtu li fekk mi ngi dund bu génne asaka jote it te fekk mu doonoon kuy liggéey mu laaj boroom xam-xam lii muy liggéeyee nu ci war a def koor ci la bokk aji màkk su ko mënee ci la bokk waaye ba ponk lislaam yépp jeex mat mat boog warlu ci boppam ne day julli ab jullit la waxtu wu jot dana ko julli kon su amee waxtu jël julliwu ko war naa xoolaat kóllëreem gam séqoon ak suñu borom subhanahu wa taala wala mu lànk lay ay lay ba ne moom as alalam asaka waru ca su boobaa it dox na tànk bu jéego yu sori yoo xam ne mi ngi jëm ci fecc kóllëre gam doxale woon diggante mu boromam weeru koor noonu doonte nit mën naa am ngànt ci bañ a joxe asaka ak dundam gépp ndax bu amul dara moom asaka du ko war ndax asaka ci alal lay war waaye julli gi nga xam ne moom nit ki mën nay wér kenn du laaj lu ko ko tee def waaye su demee ba wéré di ba ne laaj ci taxut mu wàcc ko kon moom moom nit ki ñëw dëkk moom la yonent bi wax ne bu nit ki faatoo moom la ñuy dëkk xool lu ko waral wax nañ ko fàttali ko fàttali ko waat ko mooy loo xam ne bi bu set nga taseeg moom juróomi yoon ak ay rakkam yu sew sewaan ci diggante bi su fekkee mënoo ko sawaroo ca yii ñëw par at wala par weer taxut ñuy wax yooyu mënoo def ak moom naan kon nit ki bu xasee ba wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fas na bu mu kóllëre gu dox diggante mag yàlla mi yonent bi wax ne moom la ñuy jaam su boobaa su jëlee waxtu wum julliwut war naa xoolaat kóllëre googee su amee weeru koor wu mu wóorut te dara jotu ko war naa xool diggante ma kóllëre googee su mënee dem màkka it gàntu ko ndax ay lay it war naa xool diggante ma kóllëre googee te ëllëg yàlla daf koy laaj inna laaha qad kaana mas'uula moo tax mu ne ku fasanteeg yàlla kóllëre ba yàgg mu xàcc moo koy yëg waaye la doon gën ci moom mooy muy fexe bis bu set luy gën a dëgëral pas-pas boobee pas-pasu kóllëre googee fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi waaye li gënoon ci moom mooy wa man awfa bima ahada alayhi la fa sanutihi ajran azima moo tax léeg-léeg nit ki dugg ci fecc kóllëre digganteem ak sunu boroom yàlla ñu ci yàlla musal daf koy wax muy baat yooyu ma tudd te bu waxtu julli jotee mu jatt ak ndong loolu nag su fekkee nit kaa ngi dund weesoogul bu mu tuddee julli tudd naa tudd naa yu baax yépp ponk yi ak ya ca aju ci seeni nawaafil su fekkee nag mi ngi dund weesoo gut ci moom weesoo gut na tuub rek tuub ba ci jiitu mooy réccu la ko rawal ñaareel ba mooy fas yéene duutu ko def mukk ci ak dundam su boobaa moom bu ko fasee rek mën naa jàppandi ci moom ndax sëñ Falilu Mbakke bi muy leeral ponk yi ba agsi ci jihaad daf na jihaat boo ko waxee ñëpp rët defe ne mooy jël gànnaay waaye nee na jihaat dëgg-dëgg mooy fexe ba sawar ci jaamu yàlla rek fexe ba boo jëm ci jaamu yàlla gi sa xol tàll ci mu neex la ni ku xiifoon lool bañ indim raxasu lu wa lu indi ndab la wàccaay ba gën a yàgg day gën a sawar ci ndab li ñëw ba mu def ca lam ca bëgg a def mais noonu lu mooy jihaat jihaat fexe ba jaamu yàlla neex ci sab xol say cër sawar ca kon tub bunt bu ubbi ko la boo xam ne suñu borom mi ngi ko ubbi ba fii mu nekk bu fekkee diggante nit ak nit la nag fecc kóllëre dana waral yatt ba yent yëf ba ca jiitu mooy xol bu wow ku kuy dox ci fecc kóllëre day mujj dara dutu ko mën a jooyloo du yàlla nee na du yonent bi neen du sëriñ bi nee na du jàng alxuraan du jàng xasida moo koy jooyloo waaye li koy jooyloo mooy ñàkk lam yaakaaroon ci kim bëggoon a wor rek loolu mën na ko jooyloo ki mu feccee kóllëre daal moom lu tax ku ba mu bëggoon amu ko rek mën na koo metti ba tax koo jooy waaye dara lu koy jooyloo luy tooyal xol ba mu jooy dutu ko am xol bu wow koŋ xol bu wow nag ku ci xas ba dugg saa su nekk xolam boobee daf koy jëmale ci rëbbum suñu boroom yàlla ñu ci yàlla musal ndax dara du ko waar dara saa bu ñu waxtaanee suñu boroom kem kattanu xam-xamum nit ki ci coobareem ak sañ-sañam bu tàmbalee tey jëm ëllëg mu ne yii dañuy wax rek waaye nangam amul moroom wala diw amul moroom daal di fay toog te moo ne diw moomee mu wóolu ba dendale ko ak suñu borom mën na koo dénk lu ne ba mu des alalam buy dénk ne alalam da koy tegg da koy yóbbu feneen waaye du ko dénk alalam ku wóolu ci sa alal nag bëgg ko wóolu ci sa pas-pas bëgg ko wóolu sa diggante ak sa borom loolu fecc kóllëre di mënu koo weesu ñaareel ba day teg nit perte perte adduna ak àllaaxira perte ku adduna mooy koo xas ba feccee kóllëre moom duutoo ko amaat ñàkk nga kooka su gënee lu mu gën a bari mu gën di ñàkk ñi am maanaa ñi lu mu gën a bari mu gën leen a ñàkk waaye perte ku àllaaxira ga na muy demee day defe ne yii muy def tudde ko lu baax yàlla nga ko koy noteel lu baax te fekk yàlla nee na amu ci soxla alladina yanquduuna ahda allahi min baadi mithaqihi wa yaqtacuuna ma amara allahu bihi an yuusala wa yufsiduuna fi l ardi ulaika hum alxaasiruun neew na ci alquran yonent bi neel gaa yi hal nunabbiukum bil axsarin amala ñu ne ah kay ndax du ma leen yee xamal leen perte ëllëg mooy lan buñ la ko laajee neel alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa mooy koo xam ne njortam lay wéyee ci lu muy def lu nekk amul soxla ci pas-pasu kóllëre amul soxla ci moo xam muy digganteem ak yàlla wala digganteem ak jaamu yàlla yi waaye cim xelam la koy teg rek defe na lépp ngay baax jort te nee na bu ëllëgee nam ko ko nam ko fa tege woon na la ko fay fekkee mu mel ne yàkk bu forox wolof day wax yàkk bu naqari waaye yàkk bu naqari lu mu naqari naqari am nañu ne woon géej jot ca waaye yàkk bu forox moom nit ku amum xel du ko jëfandikoo ñetteel ba ñaar yooyu benn bu ci nekk jar na sàmm kóllëre bañ a fecc kóllëre muy perte ko àdduna ak àllaaxira àdduna li fiy dox nit ñi koy doxal ku perte nit ñi perte na lépp àllaaxira it jëf moo fay dox ku jàpp ne lam def lépp baax na mu dem dara baaxu fa perte googu mënu su ko weesu donte nit ñi ci àdduna moom mënees na ko dabaatal dabaatal ko mooy kenn ku ne mu dem ca moom tuub gëm tuubal na suñu borom mu delloowaat nit ñi lam leen tooñoon ak fecc kóllëre gëm fecc woon seen diggante ak ñoom ni ko sëriñ bi jàngalee ci ab téeréem jawharu nafis wa min shurutiha ba ba mu bari lool kum feccee woon kóllëre ci wax mu dem ne ko jéggal ma kum feccee woon kóllëre ci jëflanteeb alal mu dem ne ko jéggal ma su ko fa fekkut su ko fa fekkut su ko fa fekkut ba ne ko sëriñ bi bind àgg mooy mu dem ca ña ko ña ko fa wuutu su ko fa fekkut mu saraxe ko saraxel ko ko yéene yéene ko yool ba tafas yéene liggéey fii ci àdduna nag loo xam ne bu ko waajee taxawale ëllëg mu am lu mu ko fayal waaye fecc kóllëre day indi fitna fitna nag yàlla nee moo ci alquran ñaari barab wala lu ko ëpp al fit wal fitnatu ashaddu min al qatl ak al fitnatu akbaru min al qatl am na ci fi ñu koy firi naan bokkaale waaye ginnaaw am na dégg yu bari rek lu mat a tey la fitna bu dee ci jamono mën naa doon wéré di goo xam ne kenn xamut lu koy jox nit ki te kenn xamut lu koy saafara kenn xamut kañ la kañ lay dox dajeeg moom wala bu dajeeg moom xamut ku koy faj bu ko defee xel nekk gi mu ne cim xelam mu di ko xalaat buñ ne jox loxo moo koy tax a am duutu wóolu kenn duutu wóolu nuyu kenn ku ko tàllal loxo mu bank loxoom su ko defee nag fitna fecc kóllëre daf koy jur ci aw xeet ndax koo feccee kóllëre duutu duutu mën a doon sab soppe duutu mën a doon soppeem su boobaa la fay juddoo mooy mbañante yàlla nañu ci yàlla musal waaye fecckatu kóllëre bu ñu seet ki yées ci nit ñi moom lay doon ndax ñaare yii daje yépp ñu tudde ko ay melokaan yu ab jullit dut mel day daje ci moom ndax dana wax lu amut muy fen dana ràmbaaj ab diggante mën na ko la mën naa jëw mën naa rëy rëylu mën naa naw jëfam ba melokaan yi nga xam ne kum na ci moom mënu su ko tudde ku am makaarimul axlaaq yépp mën naa daje ci moom yàlla nañu ci yàlla musal moo tax gannaaw lislaam diine jëflante la lii tax nit ñi xam ne ab jullit la pas-pas bi ci la yàlla xam ko mu xam ko waaye jëflante bi moom mooy leeralal nit ñi bu ëllëgee bu fi bàyyeekoo ñu mën ne kii di ab jullit la ndax ku mënoon a sàmm kóllëre la ku sàmmoon kàddoom la ku maandu woon la ci lu yoonam nekkut ba melokaan yi nga xam ne ñaar ba ñett comme daje ci moom ñu ne kii mi ngi dox jëm ci li ñuy tuddee makaarimul axlaaq yal noonu yàlla musal ci fecc kóllëre ak la ca aju lépp di ay bokkam waaye yal noonu yàlla dimbali ba bañ a bokk ba faw ci ñi yàlla di tëkku naan ñi nga xam ne lii ñi nga xam ne ñi nga xam ne waaye daal yal noonu yàlla boole ci ñi nga xam ne tënk na ko ci alladina amanu wa amilu saalihaati tuuba lahum wa xusnu maab ñi nga xam ne ñoom bañ fasante seen kóllëre digganteeg yàlla mooy gëm gi ak pas-pas bi jëfe nañ ko ci seeni cër yàlla xam nit ñi xam ba seeni fan mat ñu wuy ji yàlla nee na tuubaa lahum ñoom seen mbir jag na texe ñeen na leen bala ñoo bàyyi ko àdduna dañ ci tàmbalee xam dara suñ ko yëgut it nit ñi danañ ko yëg dañ naan waaw kii moom lu muy liggéeyee ba jox teraangam ci ndax kat ku nangul suñu boroom yàlla mi moom lépp da koy xiir ci lépp fu njariñ nekk danaa ko demal wuti diw neex ko mu naqari ko waaye su fekkee nag fecc kóllëre la ko ba gis ko mu ne fa gàññ rek mu bëgg koo am ni moom fas ko wéri daal ci fecc kóllëre buñ bokkee fuñ jógee it bokkuñ fuñ jëm bu ëllëgee waaye tuuba lahum xusnu ma ab xusnu ma ab mooy loolu ci ngay déggee ñu ne aljanna rawante na ndax texe moom mooy dem àjjana ëllëg waaye xusnu maab mooy fa gën a baax ca àjjana ya yal nañu ci yàlla boole yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iri muslimina amin